salaamaaleykum salaam. maaleykum waaw salaamaaleykum bu ngeen gisee yàpp xam ne am na lu dee man daal sama yaram daal moo waaw yow fi nga toogoon nga ñëw maa ngi ñëw euh, bala ñoo dem Alaaji Sanex Samb waaw tey sama deuxième invité bi Samb waaw Ndiaye oh. suñu xarit waaw Pa nekk daara waaw kii Fass Barane Fass Barane ñuy ñaanal ñu ngi dund stress si àdduna kontaan na si ñun waaye nag yoon Sénégal ñaanal leen parce que ku gis fi ma toog tey xam na plateau bi moom soppeeku na ay kon a ngi si plateau bi waaye nag Ziz ak Anaconda Ziz ah. sunu xarit baxaaw baxaaw yóbbante nee na samedi le vingt neuf ca yeen waaw waaw grand événement organisé par monsieur le maire góor gi siis waaw le vingt neuf ñun ñëpp lañ fa invité ca yeen waaw waaw yéen waaw monsieur le maire nag nee na ñu fay xaar ay surprise yoo kenn mosut a yow ba ba ba mi ngi xaar waa Soleil ba le 26. ba daal na fa fekk ñëpp. bu soobee yàlla. ñu ñu ñu ray daani léegi man man ngeen ne mën nañoo enchaîner. parce que ngonal enchaînement la. Euh, sponsor ba pare. sponsor yi. Touba Gaz. Touba mooy gaz bi gën a wóor ëpp sécurité ci gaz yu nekk fii ci réew mi. dëgg la mhm. gën cee sakkan. ñu certifié leen ISO. dëgg la certification ISO boobu. Mm. daf leen tax ñu jël premier. ci doxalinu gaz fii ci réew mi mhm. ay doomu réew mi ñoo mhm. ko liggéey ay doomu réew mi ñoo ko moom jël ci ay doomu réew mi ñu fay liggéey am na bii nga mhm. xam ni kër yi moom la ñuy utiliser dëgg la am na bu neuf kilo bi nga mhm. xam ni day dem ci gazinière mhm. am na bu mag bi nga xam ni ñiy suudee wala ñi nga xam ni usines yi moom la ñuy utiliser dëgg la te norme yi gaz di doxe ca bitim réew norme yooyu la Touba gaz di doxee kon nag ñëpp ñëpp nañu dem jënd Touba gaz ndax sécurité am dëgg la du taal kër waaw du xamal ceeb dëgg la waaw teefi la cha teeg da dafa manqué sax waaw teefi la cha Euh, damaa bëgg ñu ngeen ñëw ci man ma wax ci tee filacha waaw parce que tee filacha nekk na warga bu nga xam ni dafa andi cafkay kay warga démb ak barki démb dëgg la raxuñ ci dara warga mhm. pur hmm. bu la neexee nga jël spécial bi mhm. bu la neexee nga jël oor bi mhm. bu la neexee nga jël jamaa bi bu la neexee nga jël bu foor bi wala bu guddi bi am na sax boo xam ne loolu yàpp la ak a baax mën nga cee attaaya ba dixième te flécha ci boppam. waaw day day day saf rek. dëgg la mooy war nga yu ñu xam sax. tabaski bi di ñëw amul poussière sell na. vraiment te day faj. dëgg la neex na trop moom flécha. tàngal madd. tàngal madd. bége bége. tey bége. waa Confisen. andil leen ma tàngal madd bége yi. ndax joxoon ngeen ñu ay tàngal madd bége. waa Sénégal yëpp jël ko ci ñun jeex na tàkk. andil leen ñu tàngal màdd bége bi fii hmm. ndax caf kay màdd la dëgg la xam nga sénégalais bu njëkk ba dëgg la dañ daan jël màdd di ko baxal hmm. def ci ay kaani def ci ay ay ay ay poobar hmm. def ci xorom lu ne di di ko macc waaw léegi nag ñu def ko ci tàngal waaw da koy macc mu mel ni comme maanaam période du màdd ak ñàkk période du màdd ak ku mu màdd jënd tàngal màdd bége góobi benn góobi benn la xoolal xoolal kenn mu koy macce gis nga ngay nelaw sax xoolal xoolal ay waay oh. xoolal kii nu mu koy màccee gis nga kee gis nga ña ngi ko koy ñaan mooy tàngal bége waaw tàngal sucette bége te madame Mbodj bu màdd waaw léegi ay hmm. kon dañuy ay kon damaa bëgg nga nuyoo yow ay kon dama nuyoo rek yow xam nga nag ay waaw fi may wotoo ci makan waaw makan maa ngi lay nuyu waaw makan makan sunu xarit makan maa ngi fay waaj a ñëw am na luy waaj a xew Baye Modou Baye Modou saa dina ma fa indi waaw kan Aziz dina fa ñëw ndax day am luy waaj a xew waaw léegi nag kii falaa ko fekk ah waaw daf wat mais moom ay la yéwén mës ta gis ay kon ay kon mësu toog ak moom waaw ay kon tax nañu teg ñu dóor ko liif ay kon tax nañu maas ko courant ay ay lu ñu nañu dóor ko arrêt ndeysaan mais moom daa mën a woy comme ay kon kii jàngul tubaab jàngul anglais waaw lu ay kon woy waaw noonu la koy woyee la même bu woyee bu làqatoo fii nga ne moom la. nañu acapella benn morceau ay. ana ana instrumental bi Vieux Diouf bu ko amoon ngeen xam. non na acapella rek ci ñu xool. ata demal. gis mixi maxi de cressa bel yu rone you gi cool it down cool it down and make no one to hold on and make no one to pro you are ghetto, ghetto, ghetto, ghetto revealing. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. So it's been a fire, always been a fire. Nina far. But we go far, go far high from all right to love day. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. billaay xaalis neex na xam naa ci dara eh. bu ma ci amoon ah, saaku du ma tax a doyal yaay doyal ma tax nelaw yaay ma ne bu ma ci amoon saaku du ma tax doyal yaay boo bëggee mel ne Akon ak Youssou Ndour waay boo bëggee tollu fi ñu tollu war ngaa liggéey waay ma ne war ngaa liggéey waay boo bëggee tollu fi ñu tollu war ngaa liggéey waay xaalis. Oh, oh, oh. merci beaucoup Akon. kii waay bi moo ko Akon duroon nañu baat. war na kaa war na kaa recevoir bu amoon instrumental bi sax ci nga koy gën a non dëgg la kii war na kaa recevoir lii Akon dina la recevoir yow. waaw ngeen gisee waxtaan. waaw léegi nag. ki ma invité. deuxième invité bi. waaw man daf maa yéem. Hmm. moo tax euh, l'Afrique ak ses mystères mm-hmm. l'Afrique et ses secrets mm-hmm. mu donn ko ci ay maamam mm-hmm. donn ko ci ay baayam ndax barki démb la woon ci ñoom maamam démb ci ay baayam tey moom la kooku mooy Mori jaan booy jaan mu ñëw ci plateau ngonal bi pare andi ñàngoor wu rëy woo xam ni Mori jaan góor a plan ko Mori jaan Mori maa la ko wax waaw soit day nelaw nii wala lan pep pep pep pep pep pep. attention eh Mori. oui ma Mori gars yi waa ji day nelaw. day nelaw day nelaw. Mori nuyool damay wax ak moom rek kon nag bu nekk nii bu ma nuyoo àdduna bi yëpp. Mhm. damay nuyu yéen ñi nga xam te ni yéen a ma fi indi. ñu xarit nga samay waay ngeen samay xarit ngeen te yaakaar naa ne ku ànd ak yéen. moom bu soobee yàlla yonent bi li muy lijjanti ak li mu bëgg yëpp dina ko am. waaw te soxoro leen ñoo bokk Cees mënu ngeen bañ a def lii. am na ñeneen ñeneen ñu fa nekk mais xooloo leen loolu da ngeen a xool moo di xam ne lii sëñ Tuubaa ko defal maam Njugu Njaay maam mu jëli ko Sëriñ Tuubaa te kenn du ko di nit mhm. waaw man Njugu Njaay sax bi waaw léegi sax maam lii jaan la mi ngi teg sax man kiisee woon naa ko wiiri wiiri ñun ñu xamuñu la ma daj ba ma koy usee booy mais jàpp nga ko téye ko mais benn affaire Ah. Ah. waa fekk na ma fi ni ma kii na génn jaan ji waaw ma ne ko noo invité la mu ni ma noon na génn na plateau bi wàcc na na na na jaan ji wàcc ci plateau bi ah. waaw waaw waaw bi ci boppam <laughs> waaw moom visite bi moom waaw ma ne ko nag waaw waaw moom yére bi yére bi daf ko doon simmi wala waaw fu nekk nii mënul gis sax fi mu nii lu tax xoola bëri nag bi jël écran damaa xam jaan waaw ma defal sunu maam loolu waaw gis nga bëti jaan yi ni mu mel waaw yaa ko gis nekk nii gisul dara gisatul dara fi mu nii. waaw bu tollee ci sumeeku. Hmm. dootu gis dara moo war a ma jël su yéeri bii daa ko ko tegal bëgg mu lawet mu teel a ah, sumeeku. day soxor day miti day miti te moom moo war a soxor. Ah, waaw jaan bu dee simeeku dafay bu mu dégg rek dafay def. day attaqué waaw day attaqué. day attaqué waaw day attaqué moo waral fi mu déglu nii du gis dara day santi. Ah, mais yow luy a di jàmm simeeku. déedéet maa ko moo waral ma téye ko fi fii bariwul sax nit lu mbooloo bari bari bari dama koy téye wax loo ko def ci li ma ci def mu ni teg sëñ Bamba kooku du kenn. waaw léegi la day métti si moom bu summeeku. day métti moo waral du gis moo tax gis nga ba dina mel nii léegi nag xool ko bu baax dara day dégg rek ndeysaan booy dox si lii lay dégg waaw waaw tuntul ni moom mënul gis dara ndeysaan moom la ci piton bu ndaw la bu ndaw bu ah, bu ndaw la ki demagul fenn amagul sa at bii bu ndaw la xale la Bakki Serap Fall xale la kii. xale xale xale li nga ci jeex ah? duñ jeex. au moins sax def mais sa loxo yi nii après yow mën nañ la jox lekk rek nga lekk ko. boo la neexee léegi indi ma banana na ba pom. du ma wàññi dara mais keneen ku ko def ñu yóbbu la yomal xiyaam lu tax waaw daa am man waaw yéen yow li loolu jaan ko téye nii après tibb ceeb lekk wala pour man man naa loolu man mais keneen ku ko def boo raxasul dootoo ko defati de lu tax amaana sax jaan yow dañ la ci yoon boo ko xamul waroo koo laal mais boo ko laalee mën naa ko waaw boo ko liwi sa niwi say loxo baa mu xub ko waaw da ngay dégg olof bi ne naan jaan de bu jaaree fenn riisu bant boobu noonu hmm. bant boobu képp ku ko joggi hmm. waaw bu la lugul moo raw jaan ju mat kon moom posan la ba pare bari na loxo bi te ni mën na koo yàq waaw moo tax man la am na ñoo xam te ne bu ko laalee hmm. seen loxo day ñëwi ba <laughs> ko ñemee ñun a yor lan la ko ay cuuju ginaar ko ko wala ma wut yàpp écarté gémmiñ gi jox ko ni kon lekkal mu lekk ma wut ay jinax doo koy dugal ci kaaf ko jox ko mu daal di lekk lekk moom nen laa jox mu lekk bu suur moo tax nekk nii damay jënd tablette nen bay bëgg a dee war naa mën a am ñu may nen de wax dëgg yàlla ndax ñoom nen leen gën a bëgg mais liggéey bi lan la sa liggéey la yow da nga ciy am xaalis. dara man kay bu dul sëñ Tuubaa bi may ci am ndax xam naa ne ku may nax sëñ Tuubaa nga may mën a naxee ndax lu tax. Hmm. ndax eh, li mu defal suñu maam moo rëy. waaw waaw waaw noonu leen nan la leen jaan dikkee ngeen koy ko wax ak moom ak lan nga lan la sëñ Tuubaa lan la defal sa maam. waaw waaw histoire boobu laa lay wax. ndax man Njóogu Njaay sama maam. waaw ndax boo dee dégg jasaaw Sakkour. Hmm. di nga dégg Njóogu Njaay bi daan togg bi ak Njóogu borom gaawaan mu dem kalaame ci tubaab bi ànd ak Seex Anta borom gaawaan moom la moom moom moom ngay dégg ñu naan Njóogu Njaay après kooku mooy sama maam léegi bi mu liggéey Sëñ Tuubaa ba liggéey bi mat Sëñ Tuubaa dana ko Njóogu mu ne ko Mbàkke mu ne ko boo gënee dox loo dajal na nga ko jàpp na nga dégg wax bi loo dajal na nga ko téye xamul jota jaan xamul dara gëm na Sëñ Tuubaa yaakaar na Sëñ Tuubaa mooy léppam mu génn daal di dox ba mu yàgg mu daal dajek jaan rek xel mi dem ci si li ko Sëriñ Tuubaa waxoon loo dajal téyel mu dox daal di dajek jaan ji daal di daw daal di téye daal di tourné waat daal di ñëwaat ci borom Tuubaa boole ko jooy miti ni ko Mbàkke mu ne ko Mbàkke mu ne ko da nga ne bu bëggee ne dox lu ma dajal naa ko jàpp sëñ Tuubaa ni ko ko anam mënu ko mu ngi nii sama kaw mënu ko njógu <laughs> kon nii ak lu mbooloo bari bari ba dama ciy def lu ma neex mais à part ça lan ngay liggéey à part nga ne sëñ ko lan loo dajal jàppal mu dajal jàpp ko tournawaar ci borom Tuubaa ñëw ni ko mbàkke mënu ko mbàkke mënu ko da ne mu bëggee ne dox lu ma dajal ñaa ko jàpp sëñ Tuubaa ni ko loo dajal mënu ko jaan ana mënu ko mu ngi ni sama kaw ko def naa ko sax taalibe seen doom ba say sët fu nu fekk jaan dina ko jàpp ma jaan mattee fii nii tey jii nii léegi boo ma joxee téléphone léegi moo wootee mu wax li may wax da nga jéem fa maa ngi woon foofu doon lugg ku jaan matt actuellement nii moo jógee fii maa nga war a dem tamit Saalum ba léegi yaa ngi ko bloqué ba rek waaw téléphone rek li may wax dafa leer nañ am na ñoo xam te ne déedéet déedéet fi fi ko jaan hmm. hmm. xam ki nga xamante jaan bu ko mattee mu ñëw mu la fan la jaan ji yem ak jaan ji jaan man boo ne cëpp ci ma laal suuf si wax li may wax xam man xeet jaan la ma wax saar bi dee jaan ju mooy lan mooy ki nga xamante ne day soppali ko bu ko neexee soppali ko tey bu neexee doon jaan te dafa am kooku mën nga ko jàpp waxuma la mën nga ko jàpp sax bu ma ko gisee nga xam ne lépp dëgg la day matt ma faj waxantuma laak nag moom ma fekk moom ci bërëb war koo war a mën a génne foofu wala ma war koo mën a jël daa koy tuxal ndax am na jaan yoo xamante nii ni bërëb ñëw jàpp ko mais amee te liggéey ci liggéey ndax moom dama ciy liggéey dama ciy liggéey ci laay faj ñeer siat yi yi miti tànk lu miti miti fu na la di jógee di ñëw bu doon tey jii nii woote téléphone woote tànk lu miti miti Baye Fall boo ñëwee kër ga ma def ci li ci def jox la li jox mocc ci li nga jóg dem sa yoon ndax na sidit yu nekk ci biir yoo xamante ne ni bu ma ko reyee bu ma ko feesee yooyu laay jël boole ko ay produits yoo xamante ne dama la koy lay jógee boo ko diwee si tànk seex da sax léeg-léegi ñoo koy rey du ma ko fekkee ndax sa papa dama tax naa muuri mënuma jaan yi de foo leen fekk ñu dee da war a jël perkaal daal leen koy sànge ndax da ngay dégg saari jaan nga naan du ma rey jaan ma fekke fu jaan rey ina kalkal yool yool jippo jaan suuf jàmm dugg na la da ngay dégg ci biir saari mukk nag dooma laal mukk dooma laal moom mooy dooma musa matt ci àdduna dooma laal mukk laalatuma la nag mooy man tamit duma la laal comme ni nit ñi di jatee gaynde yéen ngeen di jatee waaw noonu lañ koy jatee boobu um tëdd ñu jàpp téye waaw léegi sa xam-xam maam boobu après sa baay moo ko doon waaw léegi yow nan nga ko doondoo yow da ngaa tëdd guddi rek affaire bu solu la wala da dem sa baay jàngal la jat yi Sëriñ ba sëy sëy waaw mais nan la ko feeñoo moom moom ni ko feeñoo yow yow yow man ni ma feeñoo waaw man taximan laa woon chauffeur laa woon ku ne xam na ma ni taximan laa woon maa ma ba mu yàgg rek mu mel dana ma taxi beeg lépp bu ko laalati waaw ma xëy xëy jël bagage yi lépp daal di teg ne nii nag man li sama baay nekkoon man ci laay dimbali jaam ñi képp koo xamante ni ne na sa kër wala mat na la man boo ma woowee téléphone ñu dimbali la taar rek tax au moins moyen nag mais jaayante naa di ci dimbali ñi nga xamante ni mën naa leen a dimbali ndax olof ñaay dañuy ci liggéey hmm. ci ngay am yàlla ci ngay am yoon bi man naturel ba léegi nii ba tey ba tey képp addu bi ko xam boo nee Moustapha Ndiaye chauffeur hmm. ñun la xam naa ko neel bàyyi jaan hmm. rek man mii di doomam it ñëw naa def loo xamante ni mën naa ni sax moom ndeysaan defu ko ndax mooy sama bàyyi ndax mën naan tey ji boo ko yewoon tey ji ni ko Mody léeg-léeg dina jàppal nit jaan de mu yëkkati xéwal gu bëri jox ko dana la déedéet te moom bokku a jàppal jaan mu la bi moom moo sumi bii moo tax ma ko koy solo bëgg moom it buy sumeeku du miti loolu laa ci xam moo dama solo ko secret la ah, waaw moom si déedéet du dem foofu attention attention attention oui ma <laughs> booy bi paasam jeexagul de bon ah. des na tuuti paasam ah, des na tuuti paasam des na waaw man na xam jaay ah dama yàgg dégg ñu ne jàppkatu jaan jaan a koy mujj dëgg la waaw fa ko wax de yow baat boobu tiitalu la ankay xam nga lu tax loolu weexal waaw moo tax dañ laa waruñu laa neenal waruñu am nena bu ko jàpp kat jaan jaan koy mujjee waaw en général neenal ñuy wax ak ñàkk koo manit ak ñàkk koo manit ci lu mu doy waar doy waar ak lu mu lu mu mënti mel ba ci biir teen dama fay dugg di jàpp jaan sapeur nag dama leen di remercier sapeur papa Youssou Ndour woy na ci woy boo xamante nii woy moom importance te doomu adama yi bàyyiwuñ ci xel man Mouride dama ci bàyyi xel ndax dama ñoom ñoom amaana bu Thiès mhm. bu doon tey jii nii dañuy woote léegi nga dégg colonel Tine. mu mhm. may wax xam ne li may wax baax dina ko seetaanaat day woote téléphone ñi Mori moom de li muy wax lu wér la mhm. damay ànd ak ñoom léegi-léegi fekk leen ci kaw koy jàppee ak fit risque rek ndeysaan te bu a wala jaan ji ne fa far fos bu ñu ko tegee bët dinañ ko ko kër ga mhm. ci seen risque nag loon koy defee mhm. man nag boo ñëwee damay xam ne la ma jàpp waaw ma la waaw ma nga defe ni lii du am ay pexe yoo xam ni ñi nga xam ni lo ñi lekk laalo. waaw mën nañ la fexeel bëgg laa faat yow. doon jaam doon ah, jaam ñoom kay waaw waaw mooy ñi nga xam ne mën nañu nekk xam ne mën nañu nekk jaan léegi après dellu nekk leneen. waaw dëmm dëmm. am na waaw damay bañ àgg ci tuut bi dafa moo tax damay bañ a àgg ci tuut bi ndax dafa diis. waaw léegi man ñooñu duñ la fexeel. Euh, di nga ko xam buñ lay fexeel. bu baax samay rawaan ci boppam ñoo ma koy wax damay tëdd bu guddi mu diis gan. mais yi nga ci yor bëri na. duñ jeex man bi ma yow mbuur la ma fekk moo xamoon ni. tey non yi nga yor da ko denc sa kër. sama ay kaaf laa def ci ay kaaf. maa bëgg sa TFM ñëw. am nga soxna foo dëkkee am ni kër Baye Jaan rek waaw yow sama biir nekk laaj léegi laaj. laaj bi bàyyi sama doom bi waaw mooy a dem jàpp jaan jaan bi bañ. sa doom bi da nga ci faral maa ngi sama téléphone nga ne ak ñi ma fat ñi ma génnee seen hôpital du ma wax tudd hôpital ñu nar a dagg seen tànk vidéo yaa nga ne sama téléphone bu la neexee na ma jox téléphone bi lii lan la yow sama tànk bi man bu buum bi tiital na ma damay bëgg muy leer rek ah. Baye Fall waaw man yooyu ma eh, waaw waaw mooy bëgg muy leer ndax man ci li liggéey ak risque yi may nekk laa lay wax ndax fii télé la waaw day am risque parce que ñoom ñuy faj léeg dañ leen di bu baax hmm. waaw dañ xefeel léeg-léeg ñu dem fiir dem soppali ko jaan wala téléphone néeg bi automatiquement teg boo coupé téléphone bi bu ma demee fi bagage yi nekk fi sama bàyyi ne woon moo fa demee rek damay xam automatiquement ah, damay xam ne lii dañ laa a wootal maa bëgg a waaw a defal bagage ba foofu gis jaan ji hmm. def ci li ma ciy def du doon bu ma ko waree jàpp jour boobu noonu yóbbu ko hmm. dama koy jàpp jour boobu yóbbu ko bu dee dama ko fa war a bàyyi deux jours wala trois jours génn samay sarax soo ko jëlee foofu noonu ma def samay sarax génn ko ndax moom génn la jaan daanaka jinne la gën a mën a composé teel teel bopp bi parce que mi ngi ngaan làmmiñ bi fële ci ginnaaw moom jinne la mën a gën a composé quoi jaan jinne la gën a mën a composé doo dégg ñaan la jaan jinne la te bari na ci yeew yi nga xamante ni nii moom li muy ànd ak jinne moo ëpp ndax moom bari na bagage yoo xamante ni da jaan ji bari na ci bagage yoo xamante ni ay ay kon dee ngi fudd yow moom mën nga jàpp jàmm. non ragaluma ko nag parce que ci daara laa yoroo. waaw parce que ci daara laa ko def. waaw d'abord maa ngi jégalu tamit di nuyu téléspectateur Futurs Médias yëpp. waaw eh, ñi nekk Sénégal. ñi nekk bitim réew waaw waaw. di nuyu tamit sama papa Makan Mbaye xalifa général des coiffeurs. Hmm. sama yaay fonk naana. waaw waaw sama yaay fonk naana borom ceeb yu neex yi. waaw yàpp ma ne ma boo demee na nga góorgóorlu te nga teey di nuyu ñi nga xam ne ñëpp samay xarit lañ di ma bàyyi xel di ma bëggee waaw di wax ne daal hmm. sa waay daal xam naa ne borom affaire la daal borom bagaas la <laughs> waaw borom bagage la waaw mais nag euh, àdduna moo doxee nii daal ku ci ne am na loo xam ne moom la la jàng alxuraan ba xam daal waaw oh, man damay jàng alxuraan wàccee ñaari yoon wàccee ñaari yoon waaw mais man dama nekk koo xam ne pour may bàyyi xel dara lu may sonal yombul man man su may dox sax du ma bàyyi xel na dara mi ngi sama ginnaaw man damay gis li nekk sama kanam damay dem rek. Ah. comme ni ko Akon di waxee man daal dama gëm ne lu nekk sama kanam rek ma nekk sama kanam. taamu nga taamu Akon. ci ci ci ci waykat yi yëpp nga taamu ko ci. mi ngi ma dikkee c'était en 2004. Hmm. boobu maa ngi ci daara ji. jamono boobu sama benn grand bu ñuy wax Tafa Diop. Hmm. maa koy nuyu de passage Touba. Hmm. moo waxoon ne boobu dafa amoon benn rajo Ogman. waaw léegi su ñëwee day jël rajo Augman bi teg. Hmm. jamono boobu fi rajo léegi ah, waaw ñëwal nga Augman léegi 50 Cent. Eh, boobu 50 ngi doog a génne. Eh, waaw Saari. waaw Pakoti di doog a génne eh, bi naan léegi léegi borom bi teg ay nature lu comprendre. Hmm. léegi su ñëwee dañuy teg rajo bi moom mu ne mooy 50 Cent kii ne mooy Pakoti. boobu Akon mi ngi doog a génne triple lonely 2004 nga xam ne ay lapte ñoo ci nekk Guéro Pop of Gold. après man ma suwaay école. Hmm. mais bi ma koy bëgg sax xaw ma ne woon Sénégal la. ma nekk ci nekk ci nekk ci eh, di jël ay CDM di ko jënd ji marché di dox lu toll ne comme fii ak jàmmalaay pour ñu may tegal seede bi ma koy déglu sama xaw neex mu bu ma kontaanee su ma dégloo soom damay kontaan du ma bëgg a añ du ma bëgg a damay bég. ndeysaan ah, ah, waaye yow nan nga jàngee anglais bi te mosoo jàng anglais mosoo jàng français anglais bi yow nan ngay comprendre anglais bi. non man jànguma anglais jànguma français. te mënoo ko làkk nii. billaahi kaay ma rey la xaw ma ko ci. mais mën nga ko way. way ekoon boo teg ma way ko. d'accord ah, mën léegi. c'est bien loolu yàlla xam nga da yàlla da koy def. waaw yàlla moo ko may don boobu. Hmm. dañu ñaan yàlla rek ni euh, yàlla suturaal la ci. ba lépp loo ci bëgg nga nga am ko ci. amiin parce que ñu ngi jëm ci fin émission bi ah Baye Baye Diagne. ñu ñëw ci ay dernière question yi rek yow it. Mm-hmm. parce que man damay gis ñu nga xam ni. lii dafay am bëñ wala du am bëñ. am na bëñ kay. bëñ waaw waaw ne yor noonu rek pour di ci liggéey. te ñu ko xamoo ko day matt ba dagg tipit man du ma bëñ yeew ak ci yem. xam naa yeew la bu baax dagg ko tipit jël écran bañ na ko de bañ naa bañ naa ibbi gémmiñ saay saay kiyal loolu ak bañ na ko de la li bañ yi la nii yaa gis ah. huit rangs lay am huit rangs lay am huit waaw moom huit rangs lay am ah, eh, métti na li nga eh. bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko bu ko merloo bu ko merloo boobu bi fële bu ko merloo boobu bi fële bu ko merloo moom ay bëñam garaaw loolu loolu quoi attention eh, mais moom dina dina xeeñ moom ki mer na de non moom moom moom xeetam ñun rek ñoo xam ñu ñu ko mën a jàpp ndax fu mu jaar bu ma ñëwee damay xam fu mu jaar ah. yor sama béjjën bi di wax li may wax fu jaar béjjën ah, bi ngay waxee waaw yi nga teg nii lan la kii mooy laar bi nga xam ne mooy laar Baye Diagne bu Cees moom boo ko takkee mucc jaan ak jiit cat ak lamañ ak seetaane musu baak balaa ku yàqu yàqu laar bi boo ko takkee may ñu ci may ñu ci waaw ba mu noo koy wicci ko cent franc rek jël ci ah, bi xoolal li muy aar ankay noonu laa ko jaayee sax man ñu jënd diis cobra yeeg yëpp dama la koy jox ni la téyel nga téye ma yëkkati jaan jox la nga téye sax mën naa def la may def jaan bi bu amee fit ma yëkkati man nga defal nga ma ko ci wiir yi waaw mu ngi noonu kon nag léegi tiital kii diis laa tiital. waaw waaw diis. waaw waaw ñëpp wax nañ de. naan la moo tax nga téye janj man leen da ko war a de waruma ko téye. la waaw mu ñeme am fit. dina ci diis ko waaye man kii ngi wàcc de. déedéet fii dem yaay borom kër gi fii nga war a toog. waaye man fii laay toog léegi sàmm bàyyi ma. kii moom ay kon mi la toog ay kon sa passe jeex ah oui ma ah, génnal diis yi jox jaan jox leen mais nag wax dëgg yàlla bëgg naa ay moyen quoi ndax actuellement nii maa ngi war dem dëkk bu naan xaw ma ban dëkk ci Saloum bu 6 heures jotee ñëpp dañuy fattu ndax jaani nam nam mel foofu ñàkk ay moyen rek tax mënu ma faa dem ndax oto bi ma yor daanaka oto bu màgget la ban oto nga yor mu ngi fii ma gaare xaw ma 206 la ko wax waaw marque bi 206 la waaw dan ma koo jox mais wax dëgg yàlla yonent bi bëgg naa yi ñi nga xamante ni yéen laa dëkkal Thiès ngeen gis li may liggéey mu nekk ñu nekk en direct ñëpp di xool li dafa nekk lu wér loo xamante ni waaw bàyyi sa numéro téléphone ku këram am jaan wala ku jaan jaan sonal c'est normal maire day Diouf waaw maire day xam nga ma nga nga Amérique waaw na daa am benn xaritam bu xëm dam daa gis jaan jaan ji xëm nii léegi nii waaw yow loolu xam nga ne kon li nga yor ragal moom kay mais Ndeye laa wax. waaw waaw waaw xaritu jeewoo. ma ma seex jëlal benn ma may la. merci waay moom boo ko takkee di nga. ay kan jox ma yooyu. seetaane musiba ak balak yàqu-yàqu yàlla da ci dimbali boo amee métti biir soo amee métti biir waaw da jàng faata ñetti yoon

da ngay jël euh, laar gi. waaw xooj ko ci kaasub ndox. tari ci ñetti faatiha. trois fois waaw bismillahi rahmaani rahim ba mu jeex tak bu dee góor ñetti guux. nga tufli ko ci nga tufli ko ci bu dee góor. mu guux ci ñeenti guux. ñeenti guux waaw ñeent góor ñeent. góor ñeent la jigéen ñett. waaw loolu moom ñëpp nga jël ndox mi naan la ca def nga def ci sa loxo raay ci biir raay ci sa taxaw xool waaw taxawal taxawal xool bu dee lu bon la jox la ngelaw baa nga dem ci kër ñu jox la ñam bu bon nga lekk ko mm. balaa ngaa génn kër gi danga koy génne ci ñaar laa la koy joxee a francs xam nga nag lu garaaw mooy ku ku gis ah, ni mu tuutee nii waaw li naan li sëñ Moussa naan bul xep xale ba mu ne la yàlla na nga dee nga na amin tuutiwaayam bii mm. li mu wax nii jarta xeeb de. jarta moom waaw soo man ma ma sama njaboot gi ma wutal leen ti fukk. dese woo ci yeneen. an kay am na ñu ma bàyyi sama oto. Sénégal waaw ah. waaw bàyyi bi. waaw Sénégal nag waa Sénégal nag. jàppale leen waaw joxel sa numéro de téléphone. 77 la numéro téléphone bi 899. 851 97. 899 51. 97 ku jaan dugg kër gu kante nee na nga jëlal waaw kër gu mënti nekk ci àdduna nag laa la wax. waaw man bañu ma fenn ndax sama maam fépp la dem. non waxaatal numéro téléphone ni mu ko waxee dafa gaaw. 899. waaw 51. 97 mooy sama numéro téléphone man moo di. ma ci woowee ci wàllu jaan. wala ci wàllu tànk yu métti wala ci wàllu nerf wala ci wàllu jaan ju nekk ci bërëb boo xamante ni ki mënu ko faa jëlee. boo ma woowee man moo di ci rapidement laay ñëw boo mënta ñëw sax naa luy oto nerf nerf ci dit sama téléphone bu dee mën naa ko jël am yu ma wane am ay tubaab yoo ma leen di faj mën naa ko wane da ngeen gis ci ma jël yow bi ko ci ndox wax li may wax bu jëree yee bi ñu rey ko ma jox ko sama rek ñu dem ko rey ko bu ko rey mu ñëw fees ko li ma ci soxla ma tiim ko mu ngi sama téléphone lépp dama ko dëbb ko ba mu mokk moom la naan saab-saab waaw ko dëbb ko ba mu sa secret si télé bi dañ la mu wax na am na lu muy bu ma ko reyee jaan bi bu ma ko reyee ba fees ko ñoom bu ko reyee ba fees ko ba jox ma ko bu ma bu ma xale biir bi damay am lu may jël ci biir moom yu ma xamante dama ko soxla loolu ma rek maa ko xam bu ma ko jëlee dama ko weer ba mu waaw wut na ba daay dëbb ba mokk rubax boole ko garab googu noonu sidit lu mu garaaw garaaw garaaw garaaw moo la ko joxee boo ko ci diwee mu bàyyi ndax sidit nerf sciatique day fatt rek ay sidit la yoo xam ne day fatt ma wax loolu tey ngay dégg léegi moom loolu ma lay jox nga koy lekk ak di ko diw si yaram bi moo koy fattal yàpp ku lekk ku am asma boo ñëwee ma jox la ko nga lekk ko nga tàggoog moom yàpp jaan ku am asma nag laa la asma ay tufe yu baax laa ci def ay dama ci toog cere baase moo la toogee cere baase nga daw cere baase jaan cere baase jaan laa la wax dafa doy war maa fe sax dama koy togg ñu <laughs> xam ne la may wax maa fe jaan eh yow tamit waaw wuy ma Mame Faye Diallo dama lay dimbali te xamoo Mame Faye Diallo numéro de téléphone bi joxe ko ndànk ndànk 77 77 waaw 899 899 51 51 97 97 moo sama numéro téléphone 77 899 51 97 97 waaw yàlla fi jàmm yàgg waaw Mori Mori Mori Diam Mori Diam waaw man moom Baye Fall waaw léegi nag tàggoo leen taw feex rek bu baax dëgg la man xaw ma ma ko man. waaw célébrité yi ni mu mel ak moom mais moom fi mu teg makkaan. barke Seydina Mohamed musuma yeneen célébrité yi sax teguñu ko fa. te donc mi ngi séq ak ñoom jàmm mais moom dafa bëgg makkaan. may nuyu de passage soxna Faati Parcelles Assainies euh, ak waa Pikine sama famille. di wax nag Akon xam nga foo nekk ci àdduna. mais dama laa bëgg a gis sama reefu àdduna yëpp mooy gis la. kon dégg ma anglais nag. attention. mais Akon bëgg naa la gis de. loolu moom maa ngi koy rêvé. kon jaana baas bébé baas ah, na nga téye jaan ji. waaw nee na Akon yaa ngi koy faj. Ah, bébé baas ko réew nga yow. léegi eh, naa ko sama yóbbante man. waaw man ku ma dimbali laa bëgg te ku dimbali ba jël. man rëyu ma. dégg sama problème man moo man. lenn rek laa soxla mooy oto bu baax boo xamante ne nii nit woo dem. oto bi ma yor baaxul moo tax yéen dëkk ñi faa dem te ñëpp moo soxla te doon nekk ci nawet mu la bëgg xamal ne nawet mooy buur bi tabe lépp luy tabe hmm. nawet moo la gën a tabe moo tax ñu la nawet ci lépp di jug bu bàkk bi tooyee day am lu génn suuf day am lu jógee ci kaw te damaa fas yéene liggéeyal xam ci sama xam-xam ma bëgg nag moyen yoo xamante ni nii man moyen bi du leen lu oto hmm. oto bu baax laa bëgg boo xamante ni fu ma nit woo wax dëgg yàlla mu léegi dem lijjanti la saafara li ngay saaf li ngay sa jàmbar boobu noonu hmm. saafara ko daal delluwaat loolu rek laa soxla loolu képp ku ma ko defal ah, du ma la du ma la ma moom àjjana de waaye sa àjjana taxoon na damay xam ne sëñ Tuubaa nga ko defal ndax defaloo ko kenn ku dul sëñ Bàmba waaw loolu laa bëgg ku ma dimbali wutal ma oto boo xam te ni fu may dem ci àdduna naa taal dem ci nit jaam ñi jaam ñi rek ma tax a la woo ni la ni la kii ah nit dina la woo suba ni la may naa la woo mën ngaa dem mën ngaa dem lay lay ah, waaye may teg bagage waay jàng eh, eh, jàngay na ataay faamu nan ko faamu na ataay yi dama koy sa ah sëni koom ca kaw jaan jaan naan na ataay ja nag